ñett yooyu ku ko def sa programme mu dund loo ca teg rek baax loo gis maandu ca doo def lu bon te fu mbokk nekk nga jokk ko mbokk nag du koo bokkal ndey bay du koo bokkal réew mi koo bokkal réew mi mbokk ngeen koo bokkal diine mbokk ngeen koo bokkal quartier mbokk ngeen xam ngeen xadis yi ci yonent bi wàcce yépp ci dëkkandoo ak aay yi ci yàlla wax wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan ne wa bi dil qurba wa bi ne wa bi dil qurba la ñuy jote dafa jóge ci niveau bi dem ci niveau bële ba yàlla di wax ni yaa ayuha nnaasu ittaqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida bokkewul ak innama almuminuuna ixwatun kon niveau yi du benn nit ki jóge na ci doomu aadama am lu ko roofu ba mu mën a boromam mooy imaan yàlla ni la nag bu la duggee rek boo gisee ku mu dugg lëngu ko ay mbokk ngeen yéen ko bokk alhamdulillahi rabbil alamin fii itam mënul maye loo amul kër Seydil Hadji Malick lu ñu am mu bare mu néew génnul sunna sharia ak xaqiqa ñett yi rek moom la dunde léegi nit ñeme na def lu ko neex waaye fii ñi fi dëkk ba léegi am na lu ñuy ragal ndax ñi leen yàlla booleel du ñu leen pardonné bu ñu gisee summi dal waaye boo defee jéya fu ñu toog tooge la ñu nii ñoo ci gën a gaaw nag nettalente léegi déeyante léegi walla def la ci Facebook te duñ ci def seen adres seen profil du ca nekk looloo xew nag jamono weerante ak weer sa nawle Sëriñ Abdu wax na ko nañu maandu téye gémmiñ yi rafetal xalaat yi ak njort yi ci sunu diggante yàlla na ko yàlla jàppandal réew mi yàlla na fi yàlla dolli jàmm gisuma benn réew ci àdduna bi waruma àdduna nag waaye dox naa ba tàyyi gisuma nag fenn fu ëpp jàmm Sénégal gii ko gisuma fenn fu ëpp sutura Sénégal gii ñépp nag mënuñoo baax waaye ñépp it mënuñoo bon il faut que ñii di baax ñii di bon bu loolu amul équilibre dootul am àddina tas fokk équilibre am